man awma problème ak justice awma problème ak sénégalais yi man suma problème Jamra bi tekkiwul dara ci askan wi ONG bu ñu créé depuis 1980 nangam avant may juddu ba légui ONG ba munul lu moy tek loi bu tëj ndaw ñi di yak sen avenir munul lu moy jël drapeau gor jigéen exposer ko ci askan wi munul lu moy jangal ñu lan moy gor jigéen ñun borom ñaari tur xamone leen xamoon tam Madiankase kep leen ci xam mais jangal ngeen ñu drapeau bi wan ngeen ñu point yi juste rek pour ONG yu magi di leen jox xaalis ngeen di lek ngeen sacrifier ndaw ñi ci tur yi et c'est pas vrai. Cheikh Ahmadou Bamba mënut a dimbale nit ñi lu mooy dafa amoon daara di dundal biir yi fees muy jàngale xam-xam yi fees bopp bi muy joxe ay askar xol yi di dëgër ci yàlla muy yëkkati ruux yi di leen tarqiya loolu la Maodo nekkoon loolu la Baye Niass nekkoon loolu la maam Alaaji Abdoulaye nekkoon Alaaji Omar Ndaw ñoom ñoo doon jàppale lislaam te mosu ñoo taxaw di àtte jaam jéggal naa leen rekk ci lañ nekkoon ak orienté la bu ñu ko mënoon ñu defar la ci wilaya yow nag amoo leer amoo wilaya amoo ismullahil azam xamoo yàlla ci jëmmam ji xammewoo ko ci melo yu xammewoo ko ci tur bi xarona dafa togn tuan togn boromam muy jéggalu Musa musa bañ mu ne ko dag ma bëgg ngir suma alal ji nga jël ko musa ne lekk kook alalam bi mu pare yàlla na ko pare nga mu ne waa mu ne ko parce que dag bindul ban mi ko bind suma Mama noonu jéggal ma ma jéggal ko ndax innahu ler gafaarun rahim waaye yow amoo leer munoo defar moo tax nga féetewoo di seet luy xew ci internet bi di napp nit ñi ngir jox sa ONG crédibilité parce que yow lan ngay liggéey kan moo lay fay salaire fooy dundee lan ngay dundee looy def man jaaykatu àndalaa buri la koy bu tuuti ma rëyal ko su gàttee ma guddal ko su nooyee ma dëgëral ko loolu laay liggéey je suis fier mais looy liggéey ban niveau nga am ci islamiya ci diine lislaam ba mën a nekk défendeuru l'islam tey ku jamoon l'islam mënoo koo tontu moo tax plainte rek nga xam article constitution képp nga jàng nga ne yaay défendre l'islam nit bu juumee ci l'islam den ko war a bàyyi nitu diine yi Sénégal du réewum jullit ay réew la mu jullit ñi dëkkee mais du réewum jullit mere naa la torop mais saaga du génn te xam-xam képp laay la ndax dama ko nàmp ba gékk ko doon dem école di dem daara pare di jàngale alxuraan di joxe la di tarbiya pare nangoo liggéey bokk mag Makhtar Sarr bi nga xam ne Makhtar Sarr ban problème nga amoon ak Seneweb ci affaire vie nga ne dangay ngay wax yàlla moo tax nga daan jël musicien bu wéy lu siw rek nga taxaw xas ko saaga ko mënaloo Wally Seck tarfatal ay ni pourquoi amoon leneen looy wax lu mooy ku def lu siw baay baa bu mu fi génnee bu ko fecc di sëgga jàpp si sa ndigg moom Pape Diouf wéy bu cartonné boobu loo def këru wéy bi ba mu jeex di ko ci saaga di ko xas te xamaloo ko dara salaan jàlloo gën la xol te yàlla xol rek lay seet nga jàpp ko di ko xas nga di ko xas te mu gën laa gore gën laa bëgg sëriñam gën laa tegu ci yoon nga xulok salam, borom senewet ci affaire vie bi nga demee ba xam du li nga fogon ci nga wat senewet sen wax ji ngeen di wax yalla taxut motax waré kat yi bari ustaas yi bari te mënu ñoo soppi ben jikko ci sénégal comprendre na len dama yaq sen business parce que man damay jangalé so mané sëriñ la duma sëriñ so mané ne mané la duma ustaas duma la top duma la falé mais yeen sen business la yaq arrangé wu malen motax diw ak diw ak diw dañuy wax lu bon seen yoon nekku ci mais cheikh ahmed bu ne ho parce que ay fan sa ngeen da ngeen may top da ngeen ma faa moo tax yéen ñëpp yéen a ngi bëgg a vulgaire te jigu leen parce que lii du vulgarité c'est naturel ci man dama am sañ-sañ ci yàlla ëpp leen vocabulaire du ñu benn man ak yéen waa maxtaar saar yow su fekkee góor buy koddal nga ngay jeune may jeune nga am ak man problème léegi mënoo ma wax ne cheikh ahmed bu dee góor nga fekk ma fii kon ma dóor la ba saw sa kaw wala nga wéet yaa ngi am kurus jéemal dara ci man nag yaa xëyti mulaana wala gëm nga ne man dama tooñ bàyyi ma ak yàlla bàyyi ma ak alxuraan <laughs> li ma gën a bëgg moo tax fan yi su ma benn taalibe boo xam ne maa ko jàngaloon sëriñ bu mag la Nigéria mu ne ma sëñ bi xeex dafa bari ma ne ko noonu laa ko bëggee ndax boo songut nit doo xam mooy kan ak lan la ma ne ma ne ko na gën a bëri waaye fekk suma xel mi mu ngi man suma xol bi mu ngi bëgg yàlla maa ruuxu gaa ngi yéeg maa ngi jàkkaarloog yonantu nii may jàkkaarloog moom ak jëmmi yàlla ju sell ji rek man alhamdulilahi rabbil alamin yonantu yàlla ayuba feebaroon na ba yaram bi saxe sax yi bu ñuy wadd bu leen di for naan leen mi kullu mimma ko lekk leen li leen yàlla wërsëgal yonantu yàlla noox jabar la amoon ak doom ñëpp weddi ko géej ga lekk leen yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam solo na ba lango ak taram bu mag bi domam bim mu gënoon a bëgg tuddee ko yonent yàlla ibrahim mu dee natt bu dalut yonent yi dal lu len dal daf may dal waye bu yeggut ci xol bi ma am qalban saliman wa lisanan sadiqan ak euh, xel mu alhamdulillah bu ñak doon gatché du du am du am ñetti fan yu amul dépense bu ñàkk doon gàcce bàyyi ñes du bàyyi bor ba baraam jóg ne xam na ku ko fay bu ñàkk doon gàcce bu ñuy donn cheikh ahmadou bamba du doon wilaya ak téere waaye doon doon ay milliards dama bëgg ngeen xam ne man arrangé wu ma leen tey nag laay gëj a vidéo ci yéen fi ma koy tëjee mooy jéggaluwuma leen te bu leen ma jéggal te munu leen ci man dara muy benn ñaareel ba lépp lu ma leen wax rëccuwuma ko tuubuma ko maa tey man la neex ñetteel ba ci xeex bii ñu nekk man ak yéen man may am ndam loolu xam naa ko ci lu wér ba rus ñi nga xam den maa bëgg man ba foog ne maa ngi ci problème te maa ngi ci jàmm dara xewul tey laay tourner yéen seen page di leen wan ne seen plent yi na mat mille ndax yéen yéen a ngi exposé justice su Sénégal ne jaarul yoon te attention duma ma ngaaka convention nations unies même bu ma doon sénégalais daw génn kenn du ma jëlaat yóbbu parce que mbirum diine la defuma crime <laughs> xamu leen loolu beneen bi ci tegu seen plainte yi mun naa koo utiliser am kay waaye duma ko def man dama ëpp loolu maanaam da ngeen dofa dofa dof ñàkk xam àdduna di tëñëx tëñëx ba fa ne yéen nekk si dëgg nan tey nekk Sénégalais dañ leen yërëm parce que xam ne ne pay du ñu gàtt yéen du ngeen dara waaye bu ngeen moomee wërsëg fexe leen jël suma bos bu ngeen moomee bakkan jël leen suma bos bu ngeen moomee jàmm jël leen suma bos bu ngeen moomee tawfiix jël leen suma bos bu ngeen moomee xalawatul iman jël leen suma bos maxtaar saar bàyyil di njaalo te tuubal yàlla Maktar sar bayil di fen bayil jëw ci ay audio maktar sar Mandul taragalal yalla yow jëw nga ba jëw njabooti mawlo bi ma xam dafa bari ci réew mi la dëkk te dama connect te wallahi duma seen morom duma seen morom ci ben bor dama bëgg dama bëgg ngeen génn ci man plainte ngeen toog leen ngeen xool fan la plainte bi di mujj waaye suma der bi moom ngeen jàpp di kanyang kañang gi la ma leen war a wax yëpp wax naa leen ko man kupren naa leen tourné naa seen passe waaye jéggaluwuma leen te duma leen mus a jéggalu maa ngi ci leneen tey laay noppi ci yéen comme yéen nag seen avenir daf leen raw seigne muntaka ngi tabax ay eh, université 34 milliards Amadou Ba ngi waja jël réew mi Cheikh Ahmed Tank ci business am taxawal nako ba mu ngi ko yobbu ci bitim réew yeen amulen dara ki mom yow Matar sa bi nga juddoo ba nga dem oustaz nga ustaas boo xam ne ndax yow Matar sa ONG bi top deri gor ñi rek ku neew doole nga tejj kaso dem len ha antum wa rabbukum yeen nga ak seen borom ak ni bu ngeen demee ci yàlla di ngeen fekk ne ku bëgg nit ñi la attention sahaaba yonantu yi ñëpp ci dëgg leen nekkoon den doon rey ay nit ngir baatu laa ilaha illa ñoom ñëpp jaasee leen mujj den leen rey parce que yàlla jaam ñi rek la bëgg waxtaar géej sa ginnaaw sa njaboot nu ñuy mel ndax xalaat nga ko maxtaar gay nan ngay dee ak fooy dee boo dee ak gor yu nekk sa ndodd li fan la giñ jëm ak moom te yow leer na la ne yow setoo kilinoo maxtaar saar bàyyil jëw bàyyil njaalo bàyyil fen jigut la xoolal sa bopp nga tuubaat te dellu ci